mbokki jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak jàmm ji info saa su ne bisimi la ñu jukki leen ci li fiy jotoroot ci ay xibaar te gën a fës ci ayuba ñu nekk ñu dooree ko rek ak xibaar bi ñu daal di jotandi ni ki tey ji ci suba fële ca cité Cyprès ñi ngi fa jàpp rek ñett ci ay élèves ñoom ñoom ñooy sax ñi ngi ñuy xamandi daal dañu doon jëfandikoo ab Sénébar euh, ginnaaw nag ab source ñi ngi ñuy xamandi sax ñoom ñoo ñuy dëkkunu foofu waaye rek dafa am ab kër boo xam ne euh, chaque guddi rek ñetti élèves yooyu foofee la ñuy dem di tuxab Sénébar ci noone euh, waa ba nag am ab seetlu ni daal saa su nekk rek ñetti gune yi daal dañuy dugg fii loole sax jaaxal leen ba tax ñu daal di koy euh, signaler ci noonee rek ñu daal di woo euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, brigade de recherche de la police bu Grand ñoom ñoo sax ñoo daal di def ab descente ñu daal di leen di fekk nag ñuy tux ab senebre ba noppi daal di ci yor ab lim ñoom ñoo ñee sax foofu lañ leen daal di jàppee ba daal di leen di defeere ca parquet ñu àddu ci leneen wax itam lu soxal ci mbirub euh, juróom-ñaari soldaar yi nga xamante ni waa MFD MFDC yi nga xamante ni dañ leen euh, tegoon loxo ñu ñi xamal ni rek ab xibaar di wax ni euh, ñoom ñooñee sax kenn ci njiitu MFDC yi daal dinay bëralub xibaar xamal ni sax bu ñu ëttuwul ki tey ci altine bi ñu bàyyi juróom-ñaari soldat yooyu nga xam ne tegoon nañu leen loxo ci fàttali ñoom ñooñee ñu ngi leen daal di tegoon loxo rek lu yi 24 euh, janvier le 24 janvier bi ñu euh, génn lañu leen tegoon loxo euh, ginnaaw nag waa MFDC yi ñoo defoon ab attaque ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di soldaaru CEDEAO yooyu nga xam ne ñoom ñoo fa teewaloon CEDEAO ci fàttali ñoom ñoo ne sax la leen yóbbu woon ca Gambie jamono ji nga xam ne Gambie dañoo organiser woon ab élection ci noonu sax moom Adama Barrow moo daal di gagné woon rek kii di yaay jàmme ba noppi nag yaay Jammeh lànk ne du jóge ca dëkk ba ndax nanguwul yooyu résultat ba tax na sax waa CEDEAO yi yebaloon fa ay soldaar ngir ñu dem eh, yëkkati Yaya jàmme ñoom ñooñee sax nag eh, ci ñooñu eh, la ñu jàppoon juróom-ñaar ca ñoom daal ci faat nag ñeent ca ñoom juróom-ñaar ñooñee sax ñu ngi xamal ni daal mën na am wala rek xel mën naa dal danañ leen libéré yooyu xibaar ki ko bëral bokk ci njiit yu MFDC yi ñu àddu ci leneen wax itam ci làmb bi nga xamante ni moo amoon euh, fële ca arène national ni ki euh, dimanche euh, fukki fan ak ñett ci weeru février làmb ji nag doxoon ci diggante Tapha ak kii di Liss njaago moom mooy sax di Liss njaago Tapha moo ko mujjee daan ci ci une minute trente-huit secondes ginnaaw bi nag da ko daal di dóor mu daal di daanu moom Tapha moo daan liis njaago ginnaaw bi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di supporter yu Liss njaago yi def ñu lenn lu dul rek eh, jàpp stade ba daal di koy eh, saccagé tasaare lépp li nga xamante ni moom moo fa nekkoon ba noppi daal di eh, damm saisi sànni ko ca digg stade ba. mbokk yi ñu daal di koy jeexale ak xibaar bu neex a neex bi nga xamante ni daal di nay tàbbi ci kaw kii di euh, artiste centre bi di euh, Tarba mbaay moom moomee sax moo daal di euh, takk soxna ni ki dimanche le 13 février bi ñu génn 2022 moom moomee sax soxna si mu takk ñu ngi koy woowee rek Fatou Thiam ginnaaw bi nag ña ngi ñuy xamal ni daal seen xamante ñoom ñëw ñe ñëw daal di bokk koñ rek kon daal jàpp nañ ni daal màgg du màgg xamandoo waaye itam ànd ba ñu nekkee tout tànk ba nekk mag la xamante maanaam daal moom Fatou Thiam yàgg naa xamante ak kii di euh, Tarba Mbaye ba ni muy demee États-Unis euh, ci noonee sax ñoom ñaar bëggante dox ci seen euh, diggante ba Tarba Mbaye daal di ñaan soxna kii di Fatou Thiam Euh, kon jamono ji Tarba Mbaye dégg na heure ménage ñu koy ñaanal rek sëy bi daal di barke équipe bu jàmm ji info yépp euh, di ko ñaanal sëy bu barke waaye itam ñu am ci njaboot yi mbarke mbokki jërë ngeen jëf lii moo nekkoon xibaar bu tàbbi woon ci ñun te ñu doon leen ko jottali sant ngërëm ñeel leen sant ngërëm ñeel sama cadreuse ami euh, di leen jox rendez-vous ci beneen xibaax bu tàbbi ci ñun te ñu war leen ko jottali jërë ngeen jëf